fay lempo day suuxat réew yaatal nañ na gi teggi nañ yokkute DGID asalaamaaleykum mbokk yi daleen ak jàmm ci seen rubrique sud fiscalité ñu koy amal ñaari ci ay bés yu nekk ci sud fm seen rajo ñu ànd ceek waa DGID tey ji nag dañuy waxtaanee projet recensement national des propriétés imposables di ay terrain nu wala sax ay immeuble dañ koy waxtaanee ak Cheikh Mouhamadou Hadi Dieye di directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal moo nekk tamit euh, coordonnateur euh, projet bi monsieur Dieye ñu ngi leen nuyu. soxna maa ngi lay fay di la occasion bii nga ñu jox ñu mën a wax ak euh, seen auditeurs yi ci wàllum l'impôt. lu tax DGID euh, euh, daal di jël dogal créer bi le projet de recensement. DGID dafa def taxaw seetlu gis ni kat ñi war a fay l'impôt kër dañoo néew lool suñ ko méngaleeg ñëpp ñi nga xamante ni gis nañ ko ci dëkk bi ñu ngi am investissement bare takku. te bi xoolee gis ni que ñu ci bare fay ñu amuñu dossier lempo loolu nag mu di li nga xamante ni bi dañ ci wut ay saafara euh, ñu tëral programme bu ñu tuddee programme yaatal te programme boobu recensement def ci bokk maanaam système bi dafa nekk système déclaratif contribuable bi moo war a ñëw déclaré waaye bu déclaré wul ñun am nañu sañ-sañu dem fekki ko jël renseignement yi ñu soxla ci dëkkuwaay yi ak ci borom kër yi ngir mën a tëral lempo bi loolu moo tax ñu tëral projet bi. projet bi euh, fan lay yem ak euh, yan acteur ngeen dajale ngir rek amal ko. waaw projet bi ñu ngi ko nar a door ci biir weer wi ñu nekk nii. mi ngi nar nag euh, dem ba fileeg at wala lu ko tuuti mu ngi aju ci naka lay projet bi di avancé. mi ngi concerné tamit 46 départements au Sénégal yëpp chef lieu de département yi dina mën dem tamit fépp fu nga xamante ne bi gis nañu foofu am na potentiel ku ñu war mën dem enquête Euh, projet bi tamit li ñuy soxla ci enquête yi mooy kër yi kër yi ak lépp mu mën a bindoo moo xam usine la moo xam ay dëkkuwaay la ak lépp lu ñu fay ci def tam dañuy soxla def recensement yi. Euh, mi ngi aju tamit ci nit ñi nga xamante bi ñooy borom kër yi dañuy soxla jël seen ay éléments d'identification pour mën a bind l'impôt yi. léegi nag ñu ngi ciy liggéey ak aussi collectivités yi nga xamante ne bii ñoom. ñoom moom euh, li ci ëpp ci impôt yi soxee foofu. am na li ñuy wax commission de fiscalité locale li nga xamante ni bi dafa am participation citoyenne ak ay commissaires yu nekk ci biir commission ci ci biir commission yooyu te administration ñooñu lay liggéeyal pour mën a ñu gën a mën a saytu euh, liggéey bi ñuy def loolu tamit bokk na ci transparence ak ci ci démocratie ngir doxal bi les projets yan modalité ngeen di teg euh, dafa am nag ay modalité ay xarala yu bees ñu teg ndaxte nañ daan recensé boobu léegi dañ ko soppi léegi bu ñuy recensé recensé ay tablette ak ay application yi nga xamante ni dina tax ñu mën jël renseignement bi ci njëlbeen si terrain bi ci ay tablette def traitement yëpp ci ay euh, jumtuwaay yu xarala ba génne lempo bi léegi si façon boobu la ñuy defee suñu ay recensement recruter recruter na nag ay géomaticien ñu nga xamante ni bii affaire plan ñooñu loolu mooy seen seen liggéey ñu dool ñu dolleeku ci ñi nga xamante ni bii ñoo nekkoon ci ñun liggéey ci mbirum cadastre recruté nañ tamit ay agent recenseur ñi xamante ni dañ leen jox ay ay tenue ay badge ay casquette yoo xamante ni bii sax dinañ ci bind ay numéro téléphone yoo xamante ni ku mu neex nga woote ci numéro yooyu bu ko defee waa bureau communication dinañ la wuyu bu DGID mën a wax ak yow lépp loo xamante ni bu nga ci am ci ay leerlu ndax euh, ñii di contribuable yi ndax dinañ ci am ay avantages wala ay yombal ngir rek euh, mën a dëppoo ak li ñu mel. waaw am na mën nañu wax nag euh, jëlee GID tamit dafay def ay jéego yu kawe ci bépp ci li mbirum euh, li ñuy wax dématérialisation maanaam fexe ba léegi def ay jéego ci euh, nouvelle technologie yi léegi pour déclarer sa activité mën nga toog sa kër utiliser application plateforme yi ñu en œuvre mën nga ci def sa déclaration soxlootul ngay ñëw di def rank suñu service yi suba ba ngoon pour mën a jot ci sa déclaration yow yaay defal sa bopp déclaration ci sa kër yaa koy imprimer sa bopp mën nga ñëw tamit fay fay faytil sa bopp sa impôt bon loolu benn la impôt bi tamit def nañ ci ay yombal ay jombal mooy jël ay xeetu impôt yu bare tënk ko ci benn impôt bu ko defee léegi ñu ni kat lu benn loyer ngay fay léegi yeneen avantage yu ñu ci mën a tamit wax mooy képp kuy fay impôt yow yaa ngi participer ci développement su communauté ndaxte impôts yi li leen tax a jóg mooy réaliser infrastructure yi de base yi nga xamante ni moom la population yi di soxla donc yow mi fay sa l'impôt xamal ni yaa ngi dimbale sa bopp waaye yaa ngi dimbale tamit communauté bi nga xamante ni soxla nañu ay investissement léegi nag li ñuy ñaax population bi mooy ñu recevoir suñu ndaw yi ñuy leen yebal mën a wax ak ñoom jox leen renseignement yi ñu soxla ndaxte ñun suñu rôle mooy tette population bi accompagner leen fexe ba ñu tegu ci yoon ñi bëgg a ñëw fay si fay ñi ñëwul fay si nag yoon may nañu seen seen ñu ñëw fekk si leen fañu ne jël renseignement yi ba pare daal leen bind lempo moo xamante ni duñ ko mën a bañ a fay. Cheikh Mouhamadou Adi Dieye maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay sant yow it di la gërëm ci temps yi nga jël may ñu expliquer askan wi. mbirum lempo. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen rubrique sud fiscalité di leen jaajëfal ci seen teewlu di leen jox dig daje fii ak ñaari ci ay fay lempo day suuxat réew yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID régulariser suuf yi yombal leen këyitu kër yi lépp mën a dox ci réew mi DGID fay lempo day suuxat réew yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans votre rubrique Sud Fiscalité. Sud Fiscalité qui s'intéresse aujourd'hui au projet de recensement national des propriétés imposables. Nous recevons cher Mohamedou Adidje, il est le directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal, par ailleurs coordonnateur national du projet de recensement national des propriétés imposables. Bonjour Monsieur Djeye. Bonjour Madame. Alors, euh, pourquoi la Direction générale des impôts et des domaines a décidé de créer un projet de recensement euh, Je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous me donnez pour parler à vos auditeurs de ce projet dénommé Recensement national des propriétés imposables. Nous le constatons tous, il y a un développement fulgurant de l'immobilier partout au Sénégal et particulièrement à Dakar, sans que cela ne se traduise en termes de contributeurs et en termes de recettes équivalente. Pour répondre à ce paradoxe, la DGID a élaboré un document de référence, le programme YATAL, qui ambitionne de recenser tous les biens immobiliers assujettis à l'impôt. Et pour opérationnaliser ce programme YATAL, le projet de recensement national des propriétés imposables a été lancé. Et quel est le périmètre du projet les différents acteurs mobilisés Le projet vise dans un premier temps les chefs-lieux des 46 départements du pays et partout où le potentiel fiscal justifiera son, son déploiement. Il démarre ce mois de novembre et s'étale sur une durée prévisionnelle de 12 mois, pouvant s'étendre à 24 mois selon le degré d'atteinte euh, de l'objectif. À ce titre, la DGID collabore avec les collectivités territoriales pour collecter les données nécessaires à l'établissement des impositions dans des commissions de fiscalité locale. Ces commissions sont présidées par un élu local et comprennent euh, une participation citoyenne composée de commissaires choisis pour leur engagement envers leur communauté. les données à recueillir euh, portent euh, d'abord sur l'ensemble des terrains nus ou construits, quelle que soit la nature des constructions, maisons, magasins, immeubles, et quelle que soit la forme d'occupation, usage d'habitation ou usage professionnel, et dont il faut s'assurer de la consistance pour asseoir les bases d'imposition. Elle porte aussi sur le débiteur légal de l'impôt, propriétaire, usufruitier, superficiaire, toute personne disposant d'un droit réel sur une dépendance foncière en tant que propriétaire ou disposant d'un droit d'usage à temps. Le programme implique aussi une coopération étroite entre l'administration fiscale chargée de liquider et d'émettre les avis d'imposition, l'administration du Trésor qui distribue les avis d'imposition et recouvre les recettes et les communes bénéficiaires de ces impôts qui doivent sensibiliser les contribuables et participer à l'identification des propriétaires. Et pouvez-vous revenir euh, sur les modalités de sa mise en œuvre Il faut dire que la DGD a innové en dématérialisant tout le processus d'imposition, de la récupération des données sur le terrain à l'émission des avis d'imposition à travers une application dédiée développée par l'expertise nationale. Et cela est fait sur la base d'informations cadastrales et d'adresses numérisés et géolocalisés afin de faciliter le recensement, la distribution des avis et tout le processus de contrôle et de gestion du contentieux. Et nous avons pour cela recruté des géomaticiens pour la digitalisation des données cartographiques, des superviseurs pour manager les équipes sur le terrain et vérifier euh, la fiabilité des données. Et nous avons aussi recruté des agents recenseurs qui vont s'occuper des enquêtes sur le terrain. Et tous ces agents disposent d'équipements distinctif à l'effigie de la DGID, casquette, t-shirt, badge mentionnant le numéro de téléphone du Bureau de la communication et de la qualité de la DGID que toute personne intéressée peut relever et appeler pour le plus ample information. Il y a-t-il des avantages ou des facilitations pour le contribuable? pour faciliter la vie aux contribuables, la DGID a mis en place un certain nombre de plateformes de télédéclaration. D'abord, la déclaration d'existence en ligne. Toute personne qui décide de commencer une activité peut faire sa déclaration d'existence à partir de son bureau, à partir de chez lui, en utilisant une application web. Donc ça, c'est la déclaration d'existence en ligne. Il y a aussi la possibilité de faire sa déclaration en utilisant une plateforme euh, Mon Espace Perso. Donc on constatera que le contribuable va gagner en temps puisqu'il n'est plus question de se rendre dans nos locaux pour faire la queue pouvoir faire sa déclaration à partir d'une application Android, à partir d'un euh, ordinateur fixe. La personne peut faire tranquillement sa déclaration et émettre elle-même son avis d'imposition. Alors, il y a aussi une autre facilitation consentie par l'administration fiscale qui a institué un régime d'imposition allégé et simplifié, la contribution globale foncière, ce qui est un impôt synthétique représentatif de quatre catégories d'impôts. à savoir l'impôt sur les revenus fonciers, l'impôt du minimum fiscal, la contribution foncière des propriétés bâties, la contribution foncière et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. je terminerai en demandant aux populations de bien accueillir les agents recenseurs en leur donnant les renseignements nécessaires. Et je voudrais aussi préciser que notre rôle consiste à convaincre ceux qui ont la volonté de venir déclarer à le faire par la facilitation, l'accompagnement, Il consiste aussi au nom de l'équité fiscale dont nous sommes garants à enrôler d'office ceux qui sont assujettis et qui ne veulent pas consentir l'effort de se mettre en règle. Cher Mohamedou Adidje, euh, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. C'en est euh, euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours. fay leen boo day suuxat réew yaatal nañ natt gi teggi nañ yokkute DGID régulariser suuf yi yombal leen këyitu kër yi lépp mën a dox ci réew mi DGID